ay tuuma tegu ci kaw député Benno Boko Yakari di wax ne lu yakku ci assemblée ba ñoma martar Diop weddi ba mu set. amul dara lo xam ne nañ ko rek ñu gëm suñu suñu bët di ko voté voté dafa lèr travaux de commission lañ dem ministère bu né ñeu présente ce budget mais ministère bu présente présente ce budget te budget bi ñu gëm ne li ci askan wala jëm mais amul dañ koy voté ken présenté wu fo loi homosexuelle ken présenté wu fa loi.

loolu boo xoolee ba ci biir bu dara xewee ci kër nañ laaj gan ya gan yi ñoo ñëw àndaale jikko boobu jikko bi mooy na bu dara baax na lépp yàqu mais ñun boo xoolee ba ci biir boo ñu xoolee ñun dañoo dal ñun dañuy voté ñëw toog jàpp suñ mosa ñaamar mais nag ku ñu provoqué bëgg yàq mbir mi mais ñu jaale suñ bakkan mais boo ci boo boo xoolee ba ci biir ñi ñëw amuñ formation amuñ éducation na lépp yàqu mooy moom lañ ñëwee bu dara baax mais ko on ne bu dara bax nous bëggul dara dara bax ñom des provoquer ñoy ñi wax kon sénégalais comme lima wax bu ñuy falati nañ parce que ñiñ fa andi yépp amul ku ci am expérience politique li nga xam mooy ay dóore ay saaga li ñuy def ci biir sax mënuñ la wax li def ci biir ko nit imagine na tey jii comme par exemple un député maire bu ne Diaz nekk maire de Dakar

ndaxte ci moom lañ doon xalaat tey jii mu nekk régulateur di defar waaye wax yu bon yooyu ak waxu xamadi yooyu ak wax yoo xam ne wax yu ñàkk kersa su ko mënee wax danaa jug ne ko famille euh, Ndiaga juuf ñoo ngi torox te yaa rey seen papa même bu nekkul justice olof Ndiaye na ne ku rey nit bala ngaa dee da nga dof te je vous je vous ku yàlla bind mënul tere Barthélémy Dias dof ci àdduna loolu Matar Diop la ko wax mais li ma la wax.

li motion de censure bi nga xamné ku ji politique dugaloon nako ci assemblée nationale honorable député di wax né ñooñee dal lan doon def danaka am po képp la. parce que motion de censure niñ ko tënkee dañ ko tënkee par dañ ko tënk par précipitation miriruñ ko waxtaanuñ ci ñu ñëw rek automatiquement pour bëgg buzz dugal motion de censure biñ ñu motion de censure xana premier ministre bu féké ñëwoon def déclaration politique générale lu mu dee may ko 6 mois wala nga may ko 7 mois wala 1 an. bu neexee nga def sa motion de censure woo ko nekk li ñu proposé woon un an bi gisuñ ko. mu doon dajeeg waaye taskatu xibaar yi fii ci diwaanu Touba honorable Makhtar Diop di wax ne président Macky Sall ñoom taxaw noonu temm ci fal ko 2024. non Macky Sall Macky Sall mooy suñu candidat loolu amul amul dem ma ñëw constitution bi li mu wax leer na référendum bi la na ko mooy un mandat de deux mandats de kenn amatul droit def deux mandats deux mandats de deux mandats de cinq ans. le président Macky Sall a fait un mandat de 5 ans qui se termine en 2024 premier mandat bi 7 ans la def mais lu tax président Macky bi mu bëggee wàññi mandat am 7 ans def ko def ko 5 ans conseil constitutionnel bañ lu tax doon interroger loolu pourtant il a été il a été courageux pour wax ne damay wàññi sama mandat bind ne 7 ans lañ ma fal damay def 5 ans loolu suñ ko nangu woon bu defoon mandat 5 ans am na ñaari mandat 5 c'est automatique parce que loolu la bëggoon moom la envisage def ñoom ñooy kat yi waaw may ma may ma dama ne non ñaari non am na droit laajaat beneen mandat de 5 ans dama ne il faut que ñu salier li mu bëggoon a def dañ ko fal 7 ans mu ne 5 ans lay def mu bind conseil constitutionnel ñu ne ko ah amoo benn pouvoir wàññi mandat mun ta nekk mais loolu or que lii la doon xool lii lii la gisoon xamoon ne sénégalais yi fii laa jëmoon vous avez un mandat de 5 ans ñu un conseil constitutionnel accordé ko bu vous. Vous de day ans. deux mandats de 5 ans kon day mais un mandat de 7 ans la def le droit nous, en tant que parti à nee nañ Macky Sall mooy suñ candidat 2024. mille vingt quatre te duñ ci daw duñ ci duñ ci nous candidat porter. jëlaat mandat cinq ans bi te Matar Diop la ko wax.